mbokk yi daleen ak jàmm si xibaaru ay yi si Tawfekh Production dañ koy doore ak màggalu Touba édition 2020 déclaration officielle bi jib na ñëpp teewloon nañ ko en direct seen seen fex Production waaye lees si mat jàpp moo di Serigne Bassirou Mbacke si kàddu gi mu doon yëkkati si turu mu Mountakha Bassirou moo di Serigne bi amul lenn loo xam ne dina ko def muy tànki ginnaaw wuuteeg li nga xam ne moo di sàmm ndono li mu fi fekk sàmm ak wattu rek ma fi bàyyi yooyu la kàddu la fësal di xam ne ne màggal gi amul lenn lu si soppeeku atum ren ñuy defoon rapport bi seen liggéey xalaat la woon bu jëpp waaye tey ji ndogal rek bala benn ndigal rek la ñu war a mën a jàpp muy lu tukkee sëñ bi waaye toftal na si woo murit yëpp nag ñuy dolli feddali woote ba ñu jàpp bu baax a baax si mesure barrière yi nga xam ne moo tax ñu mën a fegu si mbasum coronavirus juróomi million masque la ñuy laaj juróomi million yëpp nag na ci mboolem taalibe jàpp mbooleem jullit yi ngir mu yemb du loolu weesu xibaaru ay bés yi façon na si lool li ñu duppee kon siti di dëkk bi nga xam ne moom la waykat bi nekk sa diwaanu Amérique fekk baax si réewum Sénégal Icon Alioune Badara Thiam siw turam daal di samp foofe si diwaanu Ngéñeen juróomi téeméeru hectare la ko nguur gi dogal ngir mu mën a samp foofee ginnaaw boobee nag ak projet bu am solo bi nga xam ne naan la ko ñëpp di ko rafetlu ay laaj samp na naka la def ba am joojale suuf ndax euh, li nga xam ni bii moo doon coowal suuf boobee mi ndax du ko topp loolu yëpp nag dinañu bàyyi xanaa moom dina ci indi ay leeral wala bon jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi lu ci man di am daal moo di projet bi moom lu am solo la te ñëpp war nañ ko mën a rafetlu xew-xewu jamono ak jee yu waar yi nga xam ne mooy am jamono ji ci réewum Sénégal ñëpp seeloon nañ ko diwaanu Thiès lu yàggul dara ci biir semaine bi gis nañu tamit beneen góor goo xamante ni bii dañ koo fekk ñu daal di takk buum sa baat ba ci ronu Dakar ndax dafa xaru ndax dañ ko faat lu ci man di am enquête ubbeeku na ci waaye góor la woon ko amoon juróom benn fukki ak juróom-ñaar amoon ñaari soxna ak juróom-ñeenti bant daal di faatu loolee nag mu ngi amee ci diwaanu Tivaouane beneen faatu laata beneen faatu diggante ñaaru ayu bees ñëpp même chose xaru lañ ko foog lii moom kenn foogu ko mbënn mi ñëpp teg seen bët ci réewum Sénégal taw bu métti bi nga xam ne taw na ko diggante samedi ak ji nekk loo xam ne dina ko jafe-jafe ci réew mi yëpp rawatina Ndakaaru ak banlieue bi fii nekk daanaka njaboot yu bari ci biir ndox mi lañu ñu fanaan guddik samedi gi li ko waral moo di taw yu bëri yi nga xam ni daanaka dafa yendoo taw si bi la bis indil jafe-jafe askan wi ñuy woo nag ñi nga xam te ni bi ñoo di gouvernement bi donte njiitu réew mi relancé waat na li ñuy wax plan Orsec di ñaan jëwriñ ngir wàllum biir réew mi ngir mu doxal ko ba jàppale ñi nga xam ne ñoom la mbënn mi laal waaye laaj day samp ana 750 milliards yi nga xam ne moom la ñu la taxawu mbënn mi ndax loolee dañ ko dugal fa mu war a dugg ndax loolee dafa demul fa mu war a dem ak si mën di am ndox mii moom ñëpp ko séenandoo ñëpp ko gisandoo te askan wi bu baax a baax jàpp si war na bu baax ndaxte ñii di njaboot yi sonn nañu lool njiit réew mi ginnaaw tiwit boobu li si ëpp solo moo di wàcc si boppam si biir ndox mi xuus si ndox mi laataa dem ay CEDEAO ak waxtaan waxtaan ak sa askan si boppam moo si war a jiitu. lii lañ leen indiloon si xibaaru ayu bés yi di ñaanal ñëpp ñu wàcc màggal gi ak jàmm te it respecté li nga xam ne moo di mesure barrière yi.